pour moi, Dieu, moi le prophète Sonko, vous les chrétiens là, vous les pauvres types là, mourez pour moi. Il y a des chrétiens et des pauvres qui décident de mourir pour ce titre de Sonko. C'est extrêmement grave. Une monde qui parle comme ça. Des Sénégalais, malheureusement pour la plupart incultes, pour la plupart inconscients, analphabètes, le suivent aveuglément. comme des fous. Qui dit que vous c'est tuer de son coup. Tuer, c'est extrêmement grave. Comme des rebelles qui parlent que ça rebelle, vous le savez. Il ne s'engage C'est un rebelle. je vous dirai pourquoi il est rebelle. Et chaque fois, comment il dirige le maquis, et comment il travaille avec le maquis, et comment il bombarde et tue les Sénégalais. Sonko est un criminel. nous sommes avec un criminel. On le démasque. Les rebelles ont voté pour lui, hein, parce qu'il le promet la monnaie locale, la monnaie séparatiste, la monnaie rebelle. <laughs> On n'a pas la monnaie, s'il peut battre la monnaie là-bas, on le... Aïe, ah, qui le veut y abattre Il mérite de... Euh, kii quoi ay fouet. mu yabaate xale bi Sonko s'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice, la plus belle dame du Sénégal. Il insulte tous les juges, procureur, juge juge d'instruction, nouveau doyen des juges. Il n'épargne personne. Mais je viens de comprendre, même le, le président de l'OMS lui a donné un cours de droit, un cours magistral, et il dit, il qu'il est juste. Mais son cours devait être un mulard. Je, ne suis pas surpris qu'il soit sorti dernier de sa promotion du samedi, de, l'avant. Il fait dernier de sa promotion. Et ça, lui demande, avant de l'insulter à Amour, de dire pourquoi il s'est classé dernier alors qu'il est en major. Il a dit beaucoup édifiés de nous parler de cette dame-là. qui l'a empêché de d'étudier correctement. Le nom encore. Le nom polisi c'est pas Juliana Juliana j'aime bien même là il a une chanson s'appelle Juliana salsa très neex très bon Juliana c'est vraiment tellement belle comme la chanson Sonko est une femme, il va donc من هذا فهو مرابو فهو مرابو كده سخبة جيليانا إني ما أدري سخبة دي بند دين جيليانا سخبة سون شابولة سون كورا وكي بين جيل سرقالي كي لنو مقبتنا لمي وانا كي بابم لمي تف ساي ساي بي ساي ساي بي ساي ساي بي ku xam ay wutam da nga koy jëppi billaahi wallaahi talaahi ku mën a naxaatee ni Sonko mën a sos mën a yàqu der mën a kàcc mën a rey mën a reylu mën a toj Sonko ngoo kenn mënuloo Sonko ci loolu waaw kii ku ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaat ma yor réew mooy la ku dof ba di ko jox su réew bi un rebelle koo xam ne bu ko Sénégal tirailleurs sénégalais yi nanguwul sax ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal moo ñu incarné l'Afrique c'est de l'histoire la capitale de l'OF Dakar tirailleur yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp Sénégalais lañ ne non la place du tirailleur africain tirailleur africain amul ci histoire du monde il tirailleur dafa bañ Sénégal Sénégal yi yeewu leen stade bi bëgg coupe d'Afrique bi ñu gagné bëgg ko ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mënu ko teree dee rebelle ju Sonko rebelle mu yeewu alaxee rebelle yàlla xam ne ni muy defee moom ndax quatorze morts yëpp moom la moo ne mortal combat dem leen dee na leen jaral seen bakkan waaw moom kan la yow nit nga ko biyee nit ñi nit ñi ñàkk fay la dem ni dee pour yow yow yaay kan daa ko fay jàng kenn daa bu ma sell kenn gën a fee bëgg Sénégal kenn ëppoo xam kenn mënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bi bu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey da ngeen a yaakaar soog ko juru leen jox leen biberon jox leen añ jàngalu leen di leen nag ay xar ak ay béy ah, daf ay xar ak ay béy di leen utiliser pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko ko tax jóg rebelle bu ñëw Sénégal pour délocaliser le conflit Casamance indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di ree na ne aa total la Sénégal kii vrai terroriste criminel bu bon ak ñoom alors encore Sonko di saaga magistrat yi di leen wan a yéen du ngeen dara dañ leen jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall lu yónn et puis c'est-à-dire complot amul lu yónni ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur am nëbbu ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcé pour ray mbelle une séance de ray mbelle ray sama ray ce qui est plus plus plus plus plus plus plus marrant il est man sama ndugu day métti sama ginnaaw gi da doon métti ba ngeen a mën a tëdd couvre génn man mënatu mën a tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jox faju ji waaw docteur Adji Sarr fan lañ ko formé ban ban université ban faculté de médecine ban ba jàngee kinésithérapie waa ji waa dëkk ba waa dëkk ba fële ca booru ba mu dëkk toog jir noonu la foofu lañ ko jàngalee fekk dafa mel faculté de médecine muy buy faj euh, ponkal moo xam ne ginnaaw mooy métti ponkal mu ñàkk fayda sa ginnaaw di métti guddi mënatoo koo muñ docteur Adji Sarr moo lay faj yéen yi ngeen di dee pour kooku li ma wax dof yooyu yeewu yeewu yéen xaw yeewu ceux qui le suivent aveuglément, comme un Dieu, doivent faire attention. Le commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment dans le complot Il l'accuse. Bon complot, moi, oui, le complot. Donc, on l'a menotté, Sonko. On l'a sorti non militaire de sa maison pour l'amener un salon sur beauté ou bien c'est lui qui directement au salon sur beauté de ses gardes de ses femmes ses épouses et de son chauffeur donc où est le complot dont il nous parle waay waay waay Sénégal yi yeewu leen yéen rek ku doon naaw yeewul ku jóg guddi ku wër fa am ñëpp ngi tëdd kenn du génn comme moom député la am na droit génn bu génn salon de poteau yeeg usine yeeg boutique yeeg fépp tëj nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre le violeur du couvre le violeur du couvre il a violé le couvre-feu pour une séance de de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yàq oui le ay Macky ay Antoine Diome ak léegi Moussa Fall général même doyen des juges bi ku ñëw rek complot parce que respecté wu un respect pour les Sénégalais. il les prend pour des demeurés. waaw ay dof la rek il a un laboratoire de mensonge de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu ni mu aayee France ba ba ci Macron noonu la aayee de ay populistes yoo xam ni di gëmloo nit ñi loo dara amul ci des gens dangereux Sonko est pire que Hitler Hitler dafa nag dox seen kaw may ba jël Allemagne fi deuxième guerre Marine Le Pen bàyyam Jean Jean Le Pen naxoon fi français yi fi Jospin dem sa doon tour ba Chirac la famille Le Pen dem ma nekk premier parti de France ci ay naxee bàyyi loolu lay bañal bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi di jaayee suufu Sénégal soo gouvernement sàcc la yaa gën a jaay suuf sàcc bi suuf si jeex na xel bi la nekk ak groupe bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis mais ne ko tuur cotiser cinq cent francs wala cinq mille ay dof yu ñàkk fayda di cotiser koo xam ni lambar lambari ci salon de beauté yi xam